lan ngeen ni reprocher processus électoral bi fi ñu toll nii. waaw euh, damay tàmbali déjà fàttali rek ne euh, démb bu ñu def conférence de presse bi dañoo yëgal waa réew mi yëpp ne am na ñu bari ñu ci biir kaso bi. Mm-hmm. Alioune Sané mooy vice coordonnateur F24. deful dara deful dara lu jar ñu tax mm-hmm. donc moom ak ñu bari société civile ñoom mm-hmm. Karim Xrum Xaax ñoom euh, ñu bari ñu ngi ci biir Mamadou njaay Papa Abdoulaye Touré ak ñeneen ñi nga xam ne ay candidats lañu nekk M23. Mhm. nekk F24. Mhm. donc ñu kaso bi. loolu bi ñu ko fàttalee ñu xool ne réew mi euh, boo xoolee li ñuy wax euh, évaluation. Mhm. élection yi fi paase yëpp am na ay tolof tolof lu ñu gis. ne lii kat par exemple deux mille dix deux mille dix neuf yi. am na ay problèmes yu bari yu ne woon. donc ñu xool ne. problème yooyu am na observateur yu fi ñëw def ay li ñuy wax ay recommandation ne bu ñu bëggee élection jaar yoon Sénégal nii ak nii la def donc ñu tënk loolu ñu tënkee ñu xool ne processus électoral bi mu commencé bi léegi dafa mel ni recommandation yi di ci dara benn bi mooy boo xoolee processus électoral bi mu ngi tàmbalee ci révision yi. Hmm. révision yi euh, wane nañ ne li muy li muy jaaree def. ni ñu ko defee sax ci code électoral bi dafa am problème. parce que révision yi nga xam ne dañ ko war a def chaque année ak yi nga xam ne dañ ko war a def ci année électorale dañ ko war a bind mu leer ne période bii la war a daan par exemple ñoom ñu leen neex la ñu def. war a def 6 mois ñu def ko un mois par exemple bu ñu defee un mois révision liste yi primo votant yi nga xam ne àgg nañ 18 ans te ñuy xaar ñu tot cent mille par an boo defee ñetti at pratiquement million la. trois cent cinquante mille francs par par par an boo defee muy un million nga ubbi trois cent trois cent mille bindu muy génne nga six cent ba sept cent mille yoo xam ne waroon mën a bindu mais binduñu ndaxte délai bi ngeen may motul donc xam muy euh, délibérément dañu écarter ay primo votants ci vote bi mm-hmm. boo xoolee loolu nga yokk ci ne Euh, am na ñoo xam ne bu ñu bindoo période hors révision dañu bind seen carte d'identité ne vote pas or vote dafa nekk benn droit fondamental yow nga xañ ko nit ki parce que simplement euh, dédoublé nga euh, pardon couplé nga carte d'identité ak carte électeur ba dafa mel ni dañuy saboter processus parce que am na ñoo xam ne dañuy écarté na ñu bari recommandation yu bari na nañ ne par exemple ñu condamné dañ leen euh, euh, duñ leen dañ leen radier définitivement mm. alors que dañuy war a délai boo xam ne par exemple bu ñu la condamné ñu ne la yow mi kat temps de délai après ñu la dugalaat mais ñoom bu ñu la radier dañ lay radier donc yu mel noonu am ci ñu xool ne euh, lii fi am nag mooy clé USB yi gis nañ buggaan wane que am na clé yu défectueuse ñu wane ne Euh, Sénat bi nga xam ne mooy artu parce que arbitre la ci processus bi mu ngi match match football rek dafay am arbitre mhm. boo jëlee arbitre bi ñu football 15 minutes arbitre bi jël benn coup franc tiré ko si yow mhm. nga ne nga génnee ko génne ko match bi mhm. génne ko match bi xam nga loolu amul fenn donc euh, ñu génnee ñoo xam ne ñu ngi woon ci bi ñu dàq leen dugal ñoo xam ne waruñ ci dugg mu ngi mel rek nga daax arbitre dem ci banc remplaçant yi ne koy arbitré ci match bi xam nga loolu mu nekk. Mhm. donc muy yoo xam ne dafa doy waar dafay teexel donc euh, boo xoolee loolu nga ne ah lii kat dafa mel ni li fi xewoon 2019 dina fi xewaat. Mhm. parce que li xew 2019 mooy juróomi candidat ñu fi ne président Macky Sall ak ñeent yu mu janool bi ñu paree ñeent yëpp ne élection yi yoon mhm. mais mënuñ la wax lu tax jaaruñ woon. parce que techniquement dañuy wax victoire technique la. cest que en amont. en amont dañuy créer condition yoo xam ne buñ demee à la fin ñu gagné donc dafa mel ni loolu la créer créé nag en amont ñu créer condition yoo xam ne bu ñu demee à la fin dañ gagné te kenn du xam nu ñu leen naxee mooy logiciel bi. par exemple bu ñu ñëw boo laajee ku mel ni Bougane Gueye Dany wala ay Mbodj wala Boubacar Camara ñoo ñëpp dañu am ay parrain yu bari. bu ñëwee ñu éliminer leen du ñu xam lu tax parce que logiciel bi te loolu recommandation observateur wax nañ ko code source bi paramétrage bi dañ ko war a teg ñëpp gis du début à la fin ñoom ñuy contrôler est-ce que euh, code source bi c'est le même est-ce que logiciel bi changé wuñ ko parce que bu fekkee yow da nga ñëw dugal say parrain dem sa yoon ñu mun nañ changer parrain yi mun nañ changer logiciel bi boo ñëwee ñu dàq la ci base yoo xam ne kenn xamu ko donc loolu muy lu doy bi ba tey benn candidat mun la wax lan mooy fichier électoral te loolu dafa dekkul yoon loolu dafa dëppoowul ak li ñuy wax norme internationale dafa dëppowul ak li ñuy wax transparence donc loolu yëpp ñu gis ko mu mel ni comme j'ai dit bu ñu defee en amont yenn yoo xam lënt lënt yoo xam ne bu ñu demee dañ galgal daane la loolu ñu ne il faut ñu wax ci moo tax ñu ne dañu alerte ñu ne lii kat il faut ñu jóg ci ñu wax ci ba nga xam ne dañ créer condition de transparence et de sécurisation du scrutin